amaat li di kontaan ak mbégte bu baax a baax niñ ko faral di def ak kilifa yëpp te ñu fësee dalaat beneen kilifa di kàngam bu di benn soxna boo xam ne mën naa ne kenn du présenté te ndax doon na koo xam ne xam nañ ko bu baax a baax ci réew mi ak bitim réew àdduna wërnga këpp ñoo ko safoo ngir résultat yi nga xam ne mu ngi koy def ci biir ñaan bi nga xam ne mu ngi koy def rawatina paj boo xam ne mu ngi koy def kooku moo di Anam Diouf moom lañ fas yéene dalal waxtaan ci moom lépp loo xam ne jëm na ci ñaan bi nga xam ne mu ngi koy def yaatal lu bëree bëri mais laata ma ñu sama biir programme damay bàyyi bàyyi mu nuyoog askan bi. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. <laughs> di waa asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa Sénégal di nuyu waa bitim réew yëpp di nuyu mboolem jullit yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekkul sax jullit. ndax dama naan ñun ñëpp a ñuy mhm. la moo xam musulman la. Mhm. kon su ñuy dañu nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew. di nuyu mbokku internet yi Facebook Instagram TikTok ndax fépp la ñuy seetaanee macha allah ci WhatsApp bi. Mhm. Euh, kon ñu ngi ziar ñëpp te yàlla defal ñu jàmm defal ñu dégg ak topp ci barke Seydina jërëjëf euh, ya Seyda Aram Diouf ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane amaat kontaante ak mbégte dalalaat la ci site bi ngir ñi nga xam ne ñu ngi lay safoo saa su nekk di naan suñu yooyu am nañu dal ak set. atia tey fi ñuy war a waxtaanee lépp ci xam-xam lañ ko tënk waaye mën naa ne ponk yu gàtt lay doon waaye lépp ci xam lay doon di ngeen jëriñu. atia dinañ waxtaan ci ñaan ak paj yaatal ci bu baax a baax waaye dinañ ñëw ci euh, wax ji nga xam ne kii di Gaston Mbengue waxoon na ko jëmmale ko ci kenn koo xam ci way taxawaayu politiciens yi la waaye dinañ yaatalaat jëm ci affaire procès boo xam ci Barthélemy Dias la dinañ ci yaatal bu baax a baax. acca mm. tey fi ñuy njëkkee mu di wax nga xam ne Gaston wax na ko te ñu bëri rafetlu ko. Mm. ñaawlu nañ ko lan nga ciy wax lan moo ci doon sa. waaw su ma wax nag damay wax ne la waxee ndax politique moom. damay wax ne politiciens yi kenn ku nekk fi sa poste di duunee ak lii la arrangé. Mm-hmm. foofu ngay waxee wante nag Sénégal baaxowul di compter ay xeet. di compter mm-hmm. ay sant. ndax Sénégal dama naan pël yi am nañ fi doom naar yi am nañ fi doom saraxule lee am nañ fi doom bambare yi am nañ fi doom. te boo ne bambare na lee Mali la ñuy ñibbi. Mhm. soo nee jaas xëy na mu nekk Cap-Verdien wala mu nekk beneen xeet. Mhm. waaye sénégalais la parce que Sénégal la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la xam. Mhm. kon problème mu xeet ñun dajalewuñu fi. ndax boo ne Juuf séeréer la. dëgg la séeréer Sénégal wante am na yeneen xeet yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi nekk ay séeréer sant faal wala ñu sant beneen xeet. parce que mhm. seen maam yi ñoo fi ñëwoon sanc fi dëkk bi. Mhm. kon Sénégal baaxoowul ay problème mu kii la fii la sant kii fee la bokk. Mhm. cent mille menge nang fi wala cent mille faale nang fi ñu loolu intéressé wuñu mooy daal li ñu intéressé mooy. sénégalais yi moom kenn du leen diaboliser. mooy bu ñu kenn jaxasee salaamaaleykum wa rahmatullah kon. Euh, affaireu xeet ñun dajalewuñu Sénégal. Mm-hmm. ku nekk nag mën nga politique nga xool kuy ceebal sa euh, kuy tooyal sa ceeb. Mm-hmm. nga ànd ak moom. kooku moom amuñu si problème parce que Gaston su ko neexee mu ne moom pouvoir la àndal. Mm-hmm. parce que xëy na fa la gis boppam. waaye opposition bi tamit ñoom ñu ngi ànd ñoomu neen parce que ñoom tamit ci loolu la ñu gis seen bopp. kon bu ñu jël sénégalais yi di leen xaajale di leen dugal ci ay affaireu xeet parce que nag wax. balu fetal la te su génnee kenn mënu ko téyewaat. Mhm. en même temps tamit guerre yi nga xamante ni am na ci àddina bi yëpp boo ko seetaanee ci wax la jugee ko. Mhm. te wax jooju nag mooy indi guerre waaye guerre ba it ci waxtaan lay mujj. kon politique ba na rafet. Mhm. kenn ku nekk war nga mën a xëcc fi nga xamante ni yow fa nga jëm. waaye tamit nañ ko rafetal te bàyyi même bu doon benn jaas moo nekk Sénégal. jaas Sénégal sénégalais la rek. dëkkut Mali dëkkut beneen dëkk. parce que fi la j fi la màggee. dëkk nag ku fa juddoo. màggee fa ca dëkk ba nga kon wax jooju man rafet lu ma ko te su ma amoon lu may wax Gaston dama naan ko génnal nga baalu àq sénégalais yëpp parce que yow yaa ngi utal sa bopp noonu. mooy am na koo xam ne soppoon na Barthélémy Dias tey noonu. noonoon na Gaston Mbengue waaw <laughs> waaw loolu tolluwaayam la rek. Mhm. damay wax ne nit ku nekk daal li ngay wax sa tolluwaay la. waaye su amoon entourage bu baax dafay génn rek mu jéggalu sénégalais parce que sénégalais yi moom bëgg nañ ku leen tooñ. Mhm. waaye soo leen baaloo rek ñoom ñëpp lay baal. te euh, damay ñaan yàlla daal politiciens yi di dugg ci biir xeet xeet baaxut. Mhm. gis naa fi ku fi wax naan euh, ñi doon manifester wu euh, Casamance lañ maanaam ay joolaa lañu dégg nga. Mhm. loolu rafetlu ma ko am na ku fi génnee jaasi ne pël yi nañ jóg pour président am troisième mhm. mandat. kon ñu ngi indi ay affaire xeet ci senegal bii mooy ñetteelu wax boo xam ne man maa ngi koy dégg ci internet bi du may faral sax di dugg ci internet lu bari waaye maa ngi gis wax ji mu ngi tere ne kon war nañoo mën a moytu yooyu kàddu. te ku nekk nag na nga politikal ki nga àndal. Mhm. man ci loolu laa d'accord. jërëjëf jërëjëf euh, yaa Sayda Adam Diouf am na solo ci ponk yooyu nga xam ne ci lañ ubbi woon mu ci yaatal indi ci lii di gis-gisam. atia dama ñëw ci li nga xam ne sa mënin la te kenn waranteetu ko mu di seet bi nga xam ne bu wër bi nga xam ne yaa ngi koy def te am na loolu ci suñu borom dénk dañ ci ñëw ndax ga yi dañuy yàkkamti nga ñëw yaatal ci. Mhm. waaw seet moom mooy sama foor li may wax ndax seet laa njëlbeenoo maa ngi doon seet ci xotti gerte dëkkoon Nord ba may am 32 ans mu ma fekk Mauritanie kon man seet mooy sama foor en même temps tamit képp koo xam ne ñaankat nga. seet moo war a nekk sa foor parce que mënoo dugg ci kër te ubbi woo bunt bi. bunt bi nag mooy seet. képp koo xam ne mën nga ci seet su la ñaanalee da nga koy gis parce que dafay am sa problème yi mu xam. koo xamante ni nag da ngay ñëw rek moom mu defal la ñaan dëgg la nag am na ñoo xam ne yàlla may na leen ñu seet. ndax boo demee ci dëkk Saalum yi ma dëkk am naa yoo xam ne duñu seet. da ngay ñëw ñu xool la xam ne nekk ci yow ñu ñaanal la nga gis waaye du ñëpp la ko yàlla may. Mm-hmm. man nag liggéey bi may def seet mooy sama bunt. Mm-hmm. ak foo mën a nekk nag réew boo ma mën a woowee. indicatif boo ma woowee mën naa la wax ni la dëkk bii la. waaw depuis deux mille dix ma dugg ci ndakaaru ba léegi. fu nekk la ma nit di wooyee ci àddina bi. boo ma wooyee mën naa la wax ne la dëkk bii la kon yàgg naa ci seet. Mm-hmm. seet mooy bunt ñaan. ginnaaw loolu ñaan yàlla mooy sama métier. ci lañ yaatal ci jërëjëf ci mbiram seet ñi nga xam ne yéen a ngi koy safoo di site bi euh, képp koo xam ne soxla nga ko rek ne ma ko wax saa su nekk numéro yi ñu ngi noonu di daw ci suufu barre d'écran bi soo ko contacté dina jëflanteeg yow wax la euh, li nga xam ne moo lënt-lënt say projet tawat yi nga am yu bëri yaa nga xam ne yaa ngi koy mébét mu am talof-talof dina la seetal wax la li ci nekk waaye damay ñëw ci li nga xam ne ñaan la suñ ne ñaan nag dañu ñëw ñu yaatal ci ndax li dëxañoo ci biir dafa bëri ñu ñëw ci mbiram ñaan waaw ñaan yàlla macha allah lu baax la ci doomu aadama des fois nga gis koo xam ne dafa waroon a gàtt fan. mu saraxe ñaan lu yàlla yàlla yokk aw fanam. nga gis koo xam ne aw wërsëgam dafa tëju woon mu mel ni butéel. Mhm. nga ñaan yàlla mu ubbeeku. nga gis koo xam ne dafa meloon ni dañoo ko dugal ci kaso. Mhm. mu nekk fa ay mbiram yëpp taxaw mënu mhm. dugg ci dara mu sotti. nga ñaan yàlla yàlla ubbi. kon ñaan yàlla xalaa kulli lu baax la ci doomu aadama mhm. ak côté boo mën a nekkee moo xam jullit nga wala katolik nga wala ab yéeféer nga gëmoo dara mhm. xaalaa kulliyaal moom mhm. yàlla sunu borom day maye te day may ku ko neex kon lu ñuy digtal suñu doom suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci àdduna bi yëpp dama naan ak foo mën a ñaanloo ak noo ko mën a ñaanee waaye ñaan yàlla moom xaalaa kulliyaal kenn mënu ko dàq kon nag euh, soxla yaa yal na yàlla faj aajooy clients yi nga xam ne yàlla indi na leen fii ci unité 25 ci man. Mhm. parcelle laa dëkk unité 25. Mhm. numéro yi mu ngi dox ci suufu écran bi. Mhm. képp koo xam ne indi nga sa aajo fii yàlla ko yàlla faj. comme ni ma ko dooree woon ci liggéey loolu laa doon ñaan yàlla. dëgg la nag damay wax ne ñëpp mënoo leen a ñaanal ñu gis. lu wër waaye bëriwut nag lu may dal ba ma duggee ci liggéey ba léegi macha allah fa tabaarakalla. maa ngi am ay résultats yoo xam ne maa ngi seq ak ñoom depuis ma jugee ko Mauritanie 2016 ba léegi maa ngi jëflante ak ñoom ñu fi dem di ñëw di fi yebal keneen. Mhm. kon loolu tamit may yàlla la waaye ñu ngi ciy sant yàlla beneen yoon. am na solo acca suñ ne ñaan nag lépp a ngi ci biir dëxëñoo ci dañ ciy ñëw du dee fekk na am na yooyu leen bëgg a mhm. euh, woon leen ko ci côté ñaan bi nga ak lii di paj bi ñu ñëw ci. waaw ñaan nag. Mhm. damay wax ne sangat am na ci côté boo xam ne kurus la. waaye am na côté boo xam ne sangat la. moo xam sunguf la wala reen la. moo xam da ngaa bëgg falu ci politique wala da ngaa bëgg a falu. ci mhm. beneen côté am na ñoo xam ne mbooloo la ñu wut dañu ñëw ne man mbooloo laay wut. Mhm. mbooloo nag ku koy wut am naa ci secret boo xam ne ci bopp golo lañ koy def. lasaraarkat yëpp xam nañ ko. Mhm. dañ koy def ci bopp golo am na ñu lay waxee nga defee ko ko incha allahu taala foo jublu ñëpp dinañ la fa taw. kenn mënu laa tàqaleeg mbooloo. bëgg mbooloo daal bëgg mbooloo moo xam da ngay liggéey ci télé. Mhm. danga ngaa moo yor télé bëgg ay euh, ay ay ay ñoo xamante ni maanaam dañoo bëgg a mhm. liggéey ak yow. Mhm. moo xam da ngay commerce commerce ba daanu. moo xam da bëgg nguur. wante loolu moom ñu ngi koy liggéey ci bopp golo. ñaareel bi yoon bi. mooy am nañ sunguf boo xam ne. ci wasosoor lañ koy liggéey. boo demee Saalum xam nañ wasosoor bu baax. su fekkente ne koo xam ne la woon commerce dafa daan woon da kay sangoo du ko yëkkati wala mu sotti ko ci place bi. amul sax demal ma ñëw boo koy def incha allahu taala da nga koy gis. mu mel ni am na yoo doon wane temps yi passé mu mel ni gars yi nañ ci bëgg nañ ko. waaw muy garab yi moom macha allah fa la du fi taxaw. bii <laughs> garabu ndoxu siti la. waaw day dox ci ndoxu siti day dox ci hémorroïde. <laughs> bii ndaxte dama naan ndoxu siti mooy bàyyi jàngoro yi. <laughs> bu dee garab la moom mooy ren bi. ndoxu siti moom mooy indi hémorroïde mooy indi ballonnement mooy indi yeneen i feebar. Mhm. mooy indi tamit lekk sax du rees hémorroïde moo ko kii moo koy def ndoxu siti moo koy def. Mhm. kon ku am ndoxu siti incha allahu taala mën nga jël traitement bi traitement bi nag day nekk 15 jours. Mhm. chaque jour da ngay jël kaasu kaasu ndekkeekaay nga tàngal ndox bu tàng sotti ko ci. jël benn sachet sachet bi nag dañ ko liggéey mu mel ni comme genre Lipton. parce que def nañ ko labo ñëpp ànd nañ na garab bi garab bu baax la limite baa ngi nii. dosage bi moo nekk ni da ngay tàngal ndox bu tàng rek nga sotti ko ci bàyyi ko boobu mu yàbbi nga jël sa kuddu lem rek nga yëngal. incha allahu taala dina faj ndoxu siti bu mu wér. Mhm. bii nag cuuraay la. cuuraay koo xam ne da ngaa bëgg a falu. Mhm. cuuraay bi du mhm. cuuraay nii kese danga yaakaar ne cuuraay kese la waaye cuuraay bi dafa am nu ñu ko liggéeye su fekkee da danga dem si réewu naari kilo bi buñ la ko waxee ne la nangam lay jar da nga naan déedéet du dëgg cuuraay boobu soo bëggee mbooloo. da koy suur ci kër gi soit nga bëgg a bii cuuraay ci lay dox. Ah, bii mhm. koo xam ne da ngay dem ci mbooloo te bëggu am gàcc. da nga koy guux rek def ci xorom. Mhm. galaxandiku la. Mhm. garab bi nag duñ ko liggéeyee fii. am naa keneen koo xam ne moom laa ci liggéeyal koo xam ne nekkul sax Sénégal. bii nag jigéen boo xam ne la. du yëg bànneex. jigéen boo xam ne day say mu metti wala mu nekk ak jëkkëram te du yëg plaisir. butéel bii lay jël. du kafe lay jël. 18 heures ci ngoon la koy lekk. incha allahu taala moom. dootu dootu dootu ñàkkate yëgati bànneex beneen bi nag mhm. pour góor la ah. góor boo xamante ni dafa tëlee mhm. moom tam kudd kudd bu mag lay jël dix-huit heures ci ngoon mhm. la koy luy wàccee lay wut waaye dootu wutaleeti luy yéegal incha allahu taala. barkallah jërëjëf kon mën naa ne njàmbat jeex na ak yenn tawat yi ndax euh, yaay Sayda ñëw na indi leen yoo xamante ni yoo taw féexe la jëmale ko ci seen wërgu yaram acca mu ngi noonu ku ko ci soxla rek euh, ni ma ko waxee saa su nekk moom mu ngi nekk euh, parcelle unité 25 numéro yi ñu ngi noonu di daw ci suuf bu baax d'écran bi bul taay di koy contacter wax ko sa mébét acca fi ñu jeexale bokk na ci mbiram mën naa ne kii di Barthélémy Dias mu di affaire projet bi waaw Barthélemy Dias nag <laughs> damay wax ne Sénégal wax dëgg yàlla dafa neex rek waaye Barthélemy Dias moom xanaa xëyu rek créer ay problème dafa amoon ñu ko attaque ji woon ci mairie su ma doon conseiller nguur man te bëgg mbir mi leer comme dañoo bëgg mu leer rek. Mhm. ana ñeenti ña nga xamante ni ñoo àndoon ak Ndiaga Diouf dem attaqué ji ko ñoom ñeenti la woon. Mhm. su fekkente ne Barthélemy Dias chaque jour day dem projet te moom kenn ay dem. waaye kon ana ña demoon attaqué ji ko. su ma leen di amee lu ma leen di digal. Mhm. dossier bi Macky Sall moom moo ko wàcce woon. gracier ko mu génn. Mhm. depuis 2012 ba mu yéegee ba léegi dossier bi di fi nekk di traîner suñ bëggoon mu leer leer tay tay tay tay tay mu mhm. leer waaye est-ce que bu leeree. dina jur jàmm ndax ña demoon ak ña yebaloon anañu. Ah, lu lu jar <laughs> waaw loolu laa lu may wax te nag dossier bi moom du leer. lii moom maa la ko wax fii. Hmm. leer moom du ko def. coow lay bëri rek déedéet coow lay bëri rek waaye du leer. Hmm. ndax bëgguñu mu leer suñ bëggoon mu leer. Hmm. balaa ñu ko gracier lañ doon dem convoqué ñi nga xamante ni ñoo demoon mairie bi di ko attaqué. du dëgg. te ba léegi ñooñu kenn gisu leen. bi rek moom mooy toog ci projet. ñooñu baa du ñu ñooñu waa nguur. ah déet man daal waxuma kenn ba tey. dama ne rek suñ bëggee mu leer ana ña demoon attaqué ji ngu euh, mairie ba ak ña leen ebaloon. ñooñu de ñoo xam ñoo waaw ñooñu nag ñoo waroon dem ci projet bi ñu taxaw. Hmm. comme projet bi nag dañ koy dàq di ko dàqaat dama naan projet bi du luy leer. te Sénégal dossier yu mel noonu daf fee bari. Hmm. kon nag nit ñi nañ ragal yàlla ci lu feeñ waaye nañ ragal yàlla ci lu nëbb. kenn ku nekk. Hmm. soo dee di nga wéetoog sa borom. te bàmmeel la ngi nii di ñëw mi ngi mel ni tey la ak suba. lu la fi nguur may dina la ko xañ suba. kon nag muy kii ate ak ki rey. ak ki ñu rey ñëpp ki demoon attaqué ji. ñoom ñëpp ci bàmmeel la mujj te yàlla sunu borom kese moo mën a seetal doomu aadama kon nag yàlla na yàlla leeral mbir yi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na solo jërëjëf euh, yaa Seyda la ñu amoon ci waxtu li ñu waroon a yaatal lépp waxtaan na ci xam naa damay bàyyi nga tàggatoog euh, ñi nga xam ne safoo nañ la di lay 221 people nga tàggatoog ñoom ba yeneen ci jaw incha allah waaw maa ngi tàggatoo tàggatoo bu doonu tàggatoo di conseiller rek ñi nga xam ne ñoo ñu jiite mm-hmm. président daal li ma koy ñaanal mooy na xool ci soxnaam si soxnaam si moom ku baax la Mhm. Marième Faye Sall macha allah ku am malaat. Mhm. man mi nga xam ne damay dox ci social. Mhm. saa bu ma amee malaat yóbbul naa ko lettre. te day jàpp ca malaat ba. ndax malaat yi nga xamante ni dañu ñëw fi di faju si pour rab. am na si ñoo xam ne dañoo am feebaru cardio. wala ñu am feebaru rein. te dama leen koy yóbbul ah. wax dëgg yàlla da ciy jàpp. kon nag ku am soxna su baax da ngaa war a soppaleeku nga baax même soo bonoon. Ah. xamaluma ko dara nag. Mhm. waaye daal li ma koy conseil bu dégloo Macky Marème moom. Mhm. du gaaw a dugg ci guuta. kon nag réew boo ko yoree da ngay mën a muñ. Mhm. te da ngay mën a jëlale. Ah. da ngay mën a jégale. waaye tamit da ngay nangu ku la opposé. xasuma kenn nag ndax Sénégal moom lu naqaree waxee la. <laughs> waaye daal li ma koy conseillé mooy na nangoo ku ko opposé. ndax oppos tax moom mu dem falu. ndax Ablaye Wade la doon opposé ah. ba Sénégalais yi dem jàpp ko. kon nan nangu Barthélemy Dias ak Sonko mii opposé ko boo ëllëgee ñoom it ñu falu am fi leneen loo xamante ni way wudul fay la moo gën mu ne fi chaque jour muy tëj ak a tijji mayu ko dara ay noon rek la koy wutal su ma amee lu may conseil loolu laa koy wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf